bu traîner rek mooy parti dafa am kenn kuy décider retardé. Mm-hmm. xam nga buñ condamné première instance ñu def appel. dafa am mémoire booy dem déposé boo demee cour suprême tamit dafa am mémoire booy déposé loolu yooyu yëpp ku ci nekk da ngay respecté sa àpp ki ragal dëgg bi gaaw a feeñ kooku day épuisé temps am yëpp dinaa ci ñëw ci kanam tuuti boo xoolee bi ñu demee cour suprême ñoom avocat mi dañu xaar ba vingt-neuvième jour bi ñu déposé c'est pour gagner mois boobu yëpp man mi nga xam ne damaa bëgg dëgg gaaw a feeñ man damay wax samay avocat ci ñetti fan ñeenti fan nañ def conclusion yi déposer suñu mémorandum pour gagner quarante cinq jours après procureur dafa war a déposer aussi mémoire am après procureur parquet cour suprême dafa war a déposer mémoire parquet cour suprême dernier délai le 10 bële passé la woon donc boo jàppee ci ni que problème bu basique droit commun diffamation li ci bari première instance lay yem. nit ñi duñ def appel mais ku bëgg a guddal jël mooy mooy ne mooy dem appel. Mhm. après dem cassation. mais ci kàttanu yàlla donc euh, dëgg dina feeñ. loolu moo ci ëpp solo. mais loolu na dafa yi xanaa boo sañoon balaa ñuy def dépôt candidature yi pour présidentielle bi. dañuy vider dossier bi. déedéet non c'est que xam nga tuuma dafa metti mhm. ñu wax la moom ba léegi waxul ni que. Mhm. li wax du dëkk. ba léegi nanguwu ko. donc man tribunal rek ma mën a jox dëgg mais nag loolu moo tax man sama bopp ma am sababu tribunal wax dëgg gi nu mu gën a gaawe comme ça man tamit ma féex samay mbokk féex ñi ma nekkal féex mais moom mi nga xam ni yëf yi xëy na da koy daan day wane ni que du wax katu dëgg wala lii mu waxoon tegu ko ci dëgg moom day def lépp pour guddal ko parce que moom moo ci rax politique ni candidat la ak ay affaires yooyu man duma candidat bokkuma ci candidature donc mais loolu pour wane la ne que euh, ñi ciy wax naan bii dafa gaaw bee dafa yeex mm-hmm. délit yi bokkul tribunal en fonction de délit yi crime crime mënta bokk ay assise la woon léegi defe naa tribunal mécanisme yi changé na loolu moo tax boo bëggee méngale bu Barthélémy Dias ak sama bos mm-hmm. du yanu maanaa parce que bii diffamation la problème de droit commun la mm-hmm. rapidement en principe trois mois war nañ ko mën a juger

mun leen alors monsieur le ministre ñu ngi jëm ci 4 janvier euh, évidemment bëgg nañu xam yow euh, ban verdict ngay xaar mais bokk na ci conseiller Ousmane Sonko yi yenn ci avocat am jàpp ne procédure bi euh, dafa entaché ay vices moo xam ci forme bi ba ci fond bi te liñ ci yaakaar 4 janvier du leen lu dul cassation maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu leen mbir yi alors mm-hmm. ban commentaire ngay def ci loolu aussi bon xam nga commentaire bi ma ciy def mooy parce mm-hmm. que avocat boo xam ni tu t'es dispensé du droit dispensé du droit mooy yow da ngaa jël droit yoon teg na le avocat boo xam ne da jël yoon teg na le di wax sa xalaat ak di pexe kooku mooy wax. Mhm. man jàpp naa ni moom amul ay avocat ay militant la am. parce que ah li ñuy wax lépp du waxi droit. firnde bi mooy dégg naa ñuy wax euh, naan non xaw ma demande déposé nañ exception déposé wuñu. cour mhm. suprême exception ñoom lu ñu déposé man dama koy am ñoom mémoire bi ñu déposé. wan naa leen ko mémoire boobu noonu ñoom ci seen bopp liñ déposé en tout cas dossier bi maître Bamba Cissé bon ñoom ñoo ko signé. ay mhm. avocat am dossier bi boo demee page cinq ci li ma leen. xool oui absolument. man bu mhm. bu ma ko liiree sax soxna si bu boo boo mënoon nga liiral ñu ko wala nga liiral ko. Mhm. di nga xam ni ñoom seen bopp xam nañ ñi waruñu woon dem cassation. parce que pour nga mën a dem cassation da ngay ñëw appel. boo ñëwul appel Sénégal yëpp seede lañ ni que bi ñuy jugé sama dossier ak moom moom ñëwul. Mhm. donc par contumace la encore. Mhm. donc boo ñëwul appel munoo dem cassation moom xam na ni ñëwul ay avocat am xam nañ ni ñëwul. Mhm. mais pourtant n'empêche. avocat ko ci appel bi. déedéet xam nga. Euh, waxi yoon la mais waxi juriste la mais mën naa la wax. Mhm. accusé bi day ñëw taxaw par force. bu mhm. taxawul ay avocat obligation waaw bu taxawul ay avocat am waruñu taxaw. Mhm. te yéen ñëpp seede ngeen ci ni que moom bi biñ koy àtte ñëwul. léegi boo ñëwul nag. munoo dem cassation mais pour bëgg a guddal jël moo tax ñu def ko e firnde li may wax ñoom seen mémoire li ñu ci wax mhm. boo demee ci document bi ma la woon boo demee page cinq mhm. da ngay dégg mu ni certes on le sait bien le plaideur défaillant mhm. devant les juges du fond n'est pas admis à présenter un moyen nouveau devant la cour suprême donc moom il est défaillant donc ñoom ñoo admettre que ne ñoom dañoo défaillant ah mais moom mooy li ma la bindal ni mooy mooy ñoom ñoom ñoo ko bind ñoom ñoo ko wax. Hmm. certes on le sait bien le plaideur défaillant devant les juges du fond n'est pas admis. à présenter ci micro hmm, pas admis à présenter. Hmm. un moyen nouveau un moyen devant la Cour suprême. toutefois le requérant. estime que cette règle devrait être tempérée moom mooy kan ba ñuy tempérer suñuy loi waaw garantir c'est-à-dire que c'est un droit fondamental de procédure garantie par les lois donc munoo bañ euh, munoo munoo munoo jàpp ne dafa am vice de forme wala de procédure du moment où les avocats de Ousmane Sonko dañu dem déposer un pourvoi en cassation non le droit ki mu garantiral oui droit dem cassation mooy ki ñëw mhm. ki ñëwul kenn garantirul ko ko ki ñëwul waru fa dem ñoom xam nañ ni ko waruñu fa dem ñoom ñoo ko bind. waaw mais boobu bi woon ay jafe xam nga euh, certificat. non xam nga. Hmm. ki ñu muy dem gàddu balam di football. kooku amul ay jafe-jafe. ki ñu woo mu gàddu dem di meeting ay Kër Massar amuloon ay jafe moom ci tànneefam. moom moo décidé ni que du wuy. waaw mais loolu yëpp aussi droit daf ko prévoir. du moment où oui. Fatou. oui euh, droit daf ko prévoir. oui. waa mais tamit droit daf ni mhm. pour nga am yoon ci lii da ngay nekk ci lii man li may wax man waxuma ko ay avocat ñoo ni certes on le sait bien mooy maanaam ñoom xam nañ bu baax ni ku ñëwul teew si ca ba atte euh, attekat bi di atte première instance wala deuxième instance surtout euh, appel ku fa teewul xam na ñoom xam nañ ni que warul dem cour suprême. et l'exception d'inconstitutionnalité mais ñoom dañuy ñaan njekk pour que cour suprême. mais ñu nekkuñu foofu pour ñaan njekk ñun nekkuñu foofu pour maye njekk mm. tribunal lii dëgg ak liy yoon lay ñëw teg. très naa la li ci ëpp solo. kon ñoom dañuy ñaan règle boobu ñu yoxamal ko yombal ko ah, oyofal ko. ci defe naa yow journaliste nga ku dégg tubaab nga. Mm. toutefois le requérant estime que cette règle devrait être tempérée. Mm-hmm. man waxuma ko ay avocats ñoo ko wax. Mm-hmm. donc ñoom ci seen bopp. xam nañ ni ko waruñu faa dem. kon ku del jëli bi ngay wax. ala kulli aal ñu jàpp nañ ne yow le kat di am ndam. non dama lay leeral leneen parce que. ci parce que parce que for naa ci weewu bay. ñu ngi naan wéy def nañ déposé nañ exception déposé wuñu loolu laa bëggoon wax parce que yow nan nga mën a xamee ne ñoom déposé wuñu exception d'inconstitutionnalité parce que bu fekkee déposé nañu ko maanaam mbir mi duñu ko àttee le 4 et bu ñu ko àtteewul le 4 la cour suprême daf koy soi mm-hmm. ñu dem yóbbu ko conseil constitutionnel qui a un délai d'un mois pour statuer sur la question mm-hmm. yow nan nga ko mën a xamee avant ñu yegg ci ci procès bi oui ñii dañuy nax nit ñi mm. ñu man ak yow bu ñu demee tribunal man lu ma déposé yow da nga koy am. Ah. yow loo déposé man dama koy am. kon yow li nga déposé kay xam. xam naa ko léegi l' d' inconstitutionnalité da nga bëgg a jàpp ne les avocats de Ousmane Sonko ne amul. Ah. mënuñu ko lii la nee naa lii lañ déposé ñoom dañu amoon euh, date bi dañu amoon weer. pour bind seen mémoire yóbbu tribunal. ñu xaar ba mu mat ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ñu soog a dem déposé jox ma. bañ ma joxee man ci la mhm. weer bi ma am commencé ma war a déposer mhm. man ci semaine laa wax samay avocat nañ ko déposé parce que damaa man maa yàkkamti man maa yàkkamti tribunal wax mhm. man ba ma déposé laa ci pare léegi mu des procureur bi nga xam ni dafa def appel tamit déposé waaye procureur u parquet général bu cour suprême moom tamit day def mémoire am déposé bu ñeenti yooyu tegaloo ñeenti yooyu ñooy tegaloo ñu ni li avocat yi di wax le dossier est en état. mais mémoire bi 38 pages la euh, je pense que c' le cinquième paragraphe. Mhm. Euh, c' est le c' est la cinquième page au sixième paragraphe nga ñu nga ñu liiral. et loolu nga wax mais ku ne xam ne ne droit quand même day day toppante parfois ñu jël fii décision am loo xam ne da koy dindi. est ce que euh, euh, mémoire bi yow bi nga ko liiree comprendre ko c' est parce que ñoom il n' avait pas le droit de déposer un pourvoi. mais du man maa ko du man maa ko comprendre. c' est interprétation bien sûr. non c' ah est pas ñoom ñoo bind du man maa ko bind mhm. du samay avocat ñoo ko bind mhm. moom ci mémoire bi mu déposé mais kay xanaa duma leen sosal ci télé bi mhm. yéen ñëpp jox naa leen mémoire bi yéen ñëpp liir ngeen moom moo bind page 5 paragraphe paragraphe 6 moom moo bind certes on le sait bien mooy maanaam moom ñoom xam nañ ay avocat ni ki kiy défendre boppam bu ñëwulee ci juge yi nga xam ne ñoo doon